ñoo ngi delloo nuyu bu baax ñu delloo siyaar bi di am mbégte lool ci président Ousmane Sonko Seydina Ousmane Sonko mu ne ñoo ngi am mbégte bu baax a baax ci teewaay bii ak kàddu yi ak kàddu yi jat yi kàddu yi rafet yi kàddu yi matale yi mooy dégg nañ lépp mu ne suñu xol sedd na ci suñu xel gën naa dal suñu yaakaar it gën naa dolli mu ne kàddu yi nga xam ne moom la Seydina Ousmane wax mu ne gëm nañ ko bu baax a baax mu ne loolu rek mooy di ci am solo te ji ak yéene ji ak passeer mu ne loolu rek mooy di ci am solo te xam nañ ne lii mu fi wax dëgg la ci moom kon loolu rek mooy di ci am solo mu ne ñoo ngi am mbégte bu baax di am yaakaar bu baax di sant di di ñaan bu baax yi na suñu borom mi ngi def ak a dindi mu gàttandu leen ak tawfiq ba lépp li seen yéene ji rafet yi li seen yitte lépp suñu borom gàtt du la leen ak tawfeex yombal na leen lépp ba seen yéene ji àgg nu mu gën a rafetee nu gën a mate mu ne loolu mooy li ci am solo mu ne gannaaw yéene ji lépp lu baax la yëngatu bi lépp lu baax la kon loolu rek mooy li ci am solo kon am nañu am xel mu dal bu baax ñu ngi sant ak gërëm. mu ne ñoom bi bu ñu naka jekk rek fas yéene nekkal sëriñ bi mu ne sëriñ bi boolewuloon dara boromam ak yonent bi mu ne loolee nag ñu ñàkk-ñàkk solo lu ñu doy foofee rek lañu ñu fas yéene teg suñu tànk suñ kéem kàttan nekkal sëriñ bi sëriñ bi nag ñëpp a bokk kon dañ fi nekk rek ku ñëw fekk ñu fi kuy dem it bàyyi ñu fi loolu rek dañ fa yéene sax mu ne alhamdulilah rabbil waxuma sax seen yéen ak seen taxawaay seen taxawaay bi ñu am mun a jël na loolu mu ne waaye suñu te yëpp mooy taxaw nekk ci sëriñ bi rek sëriñ bi ñëpp a ko bokk allahu mu ne taxawaay bi yëpp nañ ko te xam nañ ko bu baax ñu ne ñoom yi gën a fas yéene feddal suñu laxasaay ànd koog yéen ci zaahir ak baatin mu ne loolu mooy li fi nekk danañ ko ànd ak yéen bu baax a baax mu ne xam nañ seen taxawaay li ci kanam lépp mu ne lépp loolu baax lu bëgg luñ bëgg réew mi luy defar réew mi mu ne loolu danañ ci ànd ak yéen ci biir activité bi incha allah mu ne kon baye boo na seen xel daal bu baax mu ne ni suñu xel daale suñu xel daal na bu baax mu ne gannaaw yéene ji yéene ji rafet la yitte ji mat na taxawaay bi dëgër na mu ne ko loolu kuye boo rafet njot kuye boo na sa xel daal baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf